la ilaha illallah la ilaha illallah barakaatu mbokk yi comme ni leen ko waxe woon rek ñoo ngi fii tey ci kër Serigne Mor Talla eh, fekk fi Serigne Abdou sunu wayjur si Abdou Fall roqee di ñaan sa borom guddal mu wéral ko eh, kàttanal ko comme ni ko waxee woon rek ba léegi rek ñuy gëstu am euh, Amsatou Fall bokkoon ci leeri maam Cheikh Ibrahima Fall yi tey nag ñu ñëw fii ci kanamu Serigne bi xam naa di sàkku ay kaddu rek kaddu yoo xam ne donte kaddu soññee lay duñu waaye kaddu yoo xam ne day jëm ci euh, Serigne Amsatou Fall ngir Serigne bi euh, mën a am lum ñu ci baaxee rek lum gàtt gàtt wala lum tënku tënku. loolu siyaare di leen xamal ne kat suñ ci yoo xam ko yeb lool. ñuy waxee rajo doon laaj nag ci maamam muy Baye Amsatou Fall Baye Amsatou Fall nag ci njabootu Cheikh Ibrahima la am na ñu bokkal nag waajuru jigéen muy Soxna Jabu Fall moom fii la newoon fi signal yi ci biir kër gi sax la dëkkoon ba biñ nattee nag lañ ko la am kër door a génn kër gi waaye moog signal yi ñoo bokkon dëkk ci biir kër gi gu mag gi fi sa tootum bi mu tolloo ci wéradi ñu di ko fii mu fekk fi soxna jabb nekk ak moom fi la wàcc bi liggéey ba am satu nag yàlla da ko boole woon ak sëñ mootaala ak njabootu ndax sëñ mootaala la féeteloon def ko muy léppam ànd ak moom topp ko ni mag ni rakk di topp mag te bàyyiwu ci dara loolu firnde ji mooy ñaar la fi bàyyi woon ku mag ki muy sëñ moo taal la ko tudde muy sëñ taala mi nga xam ne mooy waajuru maam Cheikh kii topp soxna wali la mu mu mu duppee ko rakkam kon ñaar ñooñu dafa bàyyi ci ak njaboot moom nag loolu ma ci ma ci wax rek loolu laa ci xam ci moom mooy bin ko bi nu fekkee sa fii nekk ak Sëñ Aliou itam ndax bi mu gën a gisatul Sëñ Mor Talla Sëñ Aliou la la féetal rek nekk ak moom ba bi mu wér dee ko fii mu nekk ak Sëñ Aliou te Sëñ Aliou ko jébbal maam Cheikh Ibrahima Fall fii ci Touba loolu nag ñoo ci jégalu ci baat yi ak kii te xam ne wax ji lañ ko jiit jiitul lool jërëjëf. at mi wàcc de xanaa sëñ bi. moom nag moom taxuma ko xam naa ni ay ay 62 yooyu du ko sori waaw yi kon tey ñoo ngi fii ci kër Serigne Maïbra Fall moom Serigne Cheikh Fall Mbor moom Serigne Aline Fall Mbor moom maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouride dina ñëw fi tey ngir seet si ko waaye ngir jël si ay kàddu rek ku nekk xam na ne fees na lool ci. ñi nga xam ne wax dëgg yàlla sa borom dénk na leen xam-xam bu yaatu it ci sëriñ bi waxtu nekk nit ñi di jariñu ci ay kàddoom te ñu ñëpp bëgg a ñëw ngir taataan kenn ci njabootu maam Suraaya Fall gi muy sëriñ Amsatu Fall xam ngeen ne bokkoon ci ñi nga xam ne it ci leeri maam Suraaya yi la bokkoon tey ñu bëgg a ñëw ngir taataan ci sëriñ bi rek lenn loo xam ne danañu ko mën a indil ci jëm ju tedd jooje di sëriñ Amsatu Fall kon sëriñ bi gannaaw buñ la joxee rek nga nuyoo bismillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah rabbi israh li sadri wa yassir li wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa wasalaamu ala asrafi al anbiyaa wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin al hadi al makin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa xadiimi xadiimihi almuridul akbar maam Cheikh Ibrahima Fall baabul muridin wa man tabiahum bi insaanin ila yawmil yaqin wa baadu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi fedd li sunu jaayante ku àndul ak xàcc ci njëggunu jaral waaye itam nu yeesal waxtu wu nekk di waaw ci sunu bunt muy Serigne Cheikh Fall Mbaor yàlla ko ci kilifaam muy sëriñ am di Modou Mbenda Fall nga togal mam Cheikh Ibrahima Fall ay kilifa ak yoon wi nak mu Cheikh Mahamadul muntaka xaadimu rasoul mi nga xamne jëm la jo xamne mo koy wax waxtu wu nek ne ko lebal nga njabootuk Cheikh Ibrahima Fall lo xamne la Cheikh Ibrahima Fall waxoon ne fay bor top bi nga xamne mom lañ amé yoon tibi sallallahu alayhi wasallam ñu fay ko Serigne Touba ay bor top bobu la fay ba Cheikh Mahamadul muntaka ay dama koy wax ne ko bor bo xamne kiñ koy fay bëggul mu mat. ki koy fay bëggul mu mat mhm. ci yoonu yàlla rek la bor topp boobu saa yoo koy fay dalay lay xirtal mhm. ci gën caa jëm gën caa dem te loo ca tàbbal xeb ko mhm. donte ki nga koy jox loo ca tàbbal mu naw ko lool waaye Cheikh Mamadou Mountakha doon koo xam ne dafa sepp Cheikh Ibrahima Fall ber ko ni nga xamee ne ni la ko Serigne tubaa bere ci mboole mbooloo mi daje woon fi moom. ñi bari bari boo ne Serigne Touba Cheikh Ibrahima nga ci teg. waaye nag noonee la yonent bi sallallahu alayhi seppee xaadimu rasul ci ñi nga xam ne ñoo ko doon liggéeyal ba muy ku fés koo xam ne daf ne woon sama liggéey daf ne fang euh, euh, euh, nëbbutuwul te day gën a feeñ waxtu wu nekk kon ci loolu rek lañuy topp ba ñëw ci jëmm ju tedd ji nga xam ne tey moom lañ fas yéene waxtaane muy sëriñ xam Xamsatu Fall mu mel ne nag bu fekkee dañuy wax ak feeñam daanaka dañ koy xayma gannaaw géej gi ndax sëriñ bi bi mu jógee ci géej gi ci la jox Cheikh Ibrahima Fall ndigal ci jël ñenn ci doomi gërëm yi wala ceddo yu fi nekkoon ba ci ni mu demee ci waa kër Lat Joor noonu la demee ci ba ñu indi maam saa si mbóoj te jox ko sëriñ Touba xane sëriñ bee ko joxaat maam Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouride xane bi muy ñëw ñu ma àndal dañ ko wax ne ko gannaaw yow buur Saalum nga jóge siin kon liñ bëggoon mooy buñ lay jox ñu jox la ki nga xamne mo jité jiite talibim taalibeem la yebal waaye bimu yexé wacc ci fas wi mam bend ak ñenn ci doomi gërëm yi présenté wu am na ko lingeer bend faal mo lay tertu nangam nangam tek ci yem ci tek yeb naaw tay waxtaan wi loolu taxu ñoo jog dafa daal ne ah, man kat ëtt bi ma wacc ndeke kon samay nawle la fekk mu doon lu yaatu ci mom lu mu bëggee lool loy itam dindina kumpa ci mom loolu itam moo fa indi woon way juru sëriñ Hamsatu ci ndigalal Cheikhul Khadim sëriñ Hamsatu nag mu doon koo xam ne dafa effacé wu maanaam mm, day am ci nit ñi ñoo xam ne seen mbir daanaka du doon loo xam ne bëgg nañ mu doon lu tasaaroo lool lool lool day am ci góor yàlla yi waaye tam li wolof yi naan gileem bu ragalee tëdd biti bu ñemee tëdd biti lol daf ko dal ndax bok ci Cheikh Ibrahima Fall bu mën mën na ne ndax Cheikh Ibrahima daana wax ne man kat dama daan neub bu guma wona feñ feñal seigne bamba rek a mune dama ko tungom di wone farne fang, kon lolou ko dal mo dal sëriñ Hamsatu sëriñ Hamsatu nak ci teunk bu gatt ci gëstu ci li nga xamne yit bokku na ci li tax aw turam ñew moy Hamsatu mo melni ñing ko Hamsatu wax nañu ne sëriñ bi bu masaan dugg xal wa daana fa duggaale ku gannaaw géej gi ku mel ne sëñ Mortala ak sëñ Modou Mamoun mm-hmm. waaye wax nañu ne sëñ Amsatu da daan wër néeg bi di jàngal xuraan wala muy jàng xasida mm-hmm. bu waxtu fajar jotee mu nodd mm-hmm. sëriñ bi yëgloo mu nodd nodde ba noppi sëriñ bi jiite ko ak julli bu jullee ba noppi yeewi ko ba waxtu mu war a ñëw jotaat gannaaw timis mu dellu si wala gannaaw gee nekkaat ci boobu liggéey ci biir liggéey boobu nag wax na ne bis bi nga xamee ne sëriñ bi àggal na ab liggéeyam ba war a génn sëriñ am satu na mi ngi wër néeg bi gisut ko fi génne gisut ko fi tàbbi waaye dégg na kàddu guy wax ci néeg bi boo xam ne wóor na ko ne Cheikh Ibra Fall la waaye fu mu jaar ba dugg fi mooy li mooy li ko ëlëm nee ci biir jotaay boobu mu dégg sëriñ bi di wax ak maam Cheikh Ibra naa ko toogal ci kaw mel ne lu koy toogloo ci lal bu fa ne mhm. nee na di gàntal loola ne ko duma won nit ñi naka la ba noppi di def na neen nee na mu ne ko yaa ma def ni ma yàlla def yaa ma teg fi ma yàlla teg ak yeneen i wax yoo xam ne mënee su ko nettali ci ab télé wala rajo ba Cheikh Ibra Fall jëfe ndigal loolu ak wax yee ci am wax nañu ne bi sëriñ bi jullee fajar ba noppi wara a tijji mel ne dafa yëglu suñu am satu ngir mu néggandiko suñu am satu néggandikoo bi mu ñëwee daal di tàllal ñaanal ko daal ko am satu dafa mel ne suñ jotaayu biig bi am na loo ci fore amul kaddu yo fi deg mu ko ah dafa melni Ibra Fall la deg muy wax Cheikh Ibra Fall waye lima jaxal moy niwul ci neeg bi te it xaw fu mu jaar ba tabbi ndax rombuma ma te bi ba fajar di jot ba bi ngay genn ma ngi wër neeg bi di jang serigne mi ne ko Ibra Fall la sama borom ma ko indiloon ndax moy ki ma def ni ma yàlla def daani ko am satu mba bokko ci ñi sikki sakam biram neena na sañ neena satu na ko mu bu ci bok mukk ndax ku sikk sàkka mbirum ibrafal Faal safaanub aljanna ñel na la ku sikki sàkka mbirum ibrafal Faal safaanub aljanna ñel na la ba muy yetti yoon serigne Amsatu ba mu fa joge nak gannaaw ndinkanal serigne bi ak jotay bu doy kiimaan bobu nga xane tewé nako na tax wax ne na dem kon siari ji mam Cheikh Ibra ngir ndinkan li nga xamne ne ko na ci ku tedd ki mhm. wax nañu ne ci la sëriñ Amsatu dem nuy ji mam Cheikh Ibra mhm. bi mu ko nuyee wax ko li xew mu ne ko ah, am satu doy nga waar de sama dikk ak sëñ Bàmba nga fekke ko ba di ko dégg di ko yéem di ko yéem fi ñu toog ci jotaay bi am ku ñëw ne ko soxna diw yeeweeku na daa di ko wax maam Cheikh bi mu daa ne kon am satu mii nga xam ne moo teewe woon seede sama jotaay bi biig maag sëñ Bàmba tudde naa ko ko kon loolu mooy waral am satu ji ñi nga xam ne xamuñu mu mu mu doono nit ku doy war gannaaw Cheikh ibrahim yag na fi nek ak Cheikh ibrahim Fall ci nona nek ci nek ci ba bi nga xamee ni Cheikh ibrahim laqnat mu nek njabotuk maam Cheikh ibrahim Fall niñ ko baxo defee eh, ci ak topé non la ko defee ci Cheikh Mahamadou Moustapha non la ko defee Serigne Mortala ci ci yu bari ba bi nga xamé ni serigne aliou sax tuxu wax nañ ne dañoo amoon jaxaso lol ñom ñaar ci biir jaxaso googu kërëm gi ci angle bi fofu moy kër sëñ Amsatu euh, fété ko ñu kër señ bi gannaaw fofu tolloog boutique bi wax nañu né jamono yi mu tawété ci bëgg gu ko señ bi bëggoon ak fonk gum ko fonkon taxon na daana toggaloo soxna Aminta tafal nga xamné doom doomu maam Cheikh rofal la bok ak señ Aliou ak Cheikh Mortal ay daf ko daan wax né ko bu soté wooma bu soté wax nañ ne señ bi daana jaar ci buntu gannaaw bi di ko joxal boppam mm-hmm. seeti ko di ko joxal boppam ba nopi ci ñaan wëlbati ko duggat ci kër gi mm-hmm. ba nonu la ak mom mm-hmm. ba yalla dogal ni sëriñ am satu wacc ab liggey ci momat kon ku jaxaso won ak sëriñ bi la ndax nekkon na fee dem ak soxna jabbu soxna jabbu sëriñ bi dan ko yabal ñu jiitee ndogu yi mu jité jigéen ñu top ci ginnaw naan ko waye jabbu xiin taw and Cheikh Ibra wax nañ ne danako ko wax ne ko soxna jabbu benn tànk bi daf daan neewi wax ko ne ko bu ëllëgee ku ko amul dana la ko ñee bu ëllëgee ku ko amul dana ko ah, jabu xiin taw bu ëllëgee ko amul dana la ko ñee kon loolu bokk na ci yi nga xam ne rek niñ kàddu yoo xam ne mënees na koo tënk mhm. ci diggante sañ am satu ak ni mu jaxasoog njabootuk sañ Aliou mhm. ay sañ am satu ak ni mu jaxasoog mboolem njabootuk maam Cheikh bi Fall mooy ni nga xam ne moo amoon diggam ak magam ja muy Cheikh Mamar Talla ndax seede la ci rek muy sëñ Mortala muy way juru sëñ maam Cheikh sëñ Mortala Fall la ko tudde man xàmme naa lu yàgg damaa jàpp ne doomu sëñ Mortala la wala doomu sëñ Aliou ndax paa leen la féete woon diggante kër sëriñ bi ak kër sëñ Abdou eh, mu tudde ko sëñ Talla moomu ba fee ñu dëkkee sax ca daaru Manaan mhm. dana la woon jaxasoo ak kër sëñ bi ndax foofu sëñ Aziz la ko sëriñ Saliou joxoon ci ay jamono mhm. mu bokk ci ñi fa njëkk dëkk kon loolu rek ak jaxasoo la ak doyloo loolu itam noonu laa ko xàmmee it diggam ak sëñ Abdou Rokhaya mi nga xam ne tey jii moo fi toogal Cheikh Momar Tall mhm, mu jaxasoo gu doy waar a doy ci seen diggante ak ak ak xaritoot amoon seen diggante am na jamono yooyu daanaka doo seen sëñ Abdou te gisoo sëñ Mor mu doon loo xam ne daanaka ñi nga xam ne at yu néew ca gannaaw fekk na leen fi mhm. danañ xam loolu loolu itam féete gum féete woon ak kër sëñ Moor ay féete gum féete woon ak kër sëñ Aliou ci ni ko sëñ am sotu doxe woon mhm. loola mooy li sëriñ Momar Talla Fall wéyal waaye looloot sëñ làmp xam na ko bu baax nekkut loo xam ne daf koo yàq waaye daf koo defar mhm. moom foo ko séen rek mhm. jëmmam da nga xam ne ab Baay Faal nga gis waaye foo ko séen da nga xam ne ab murit nga gis da nga foo ko da nga xam ne mhm. yitteem ak bëggam mooy liggéeyal sëriñ mel ne itam yokk na ay jéego fi nga xam ne fi la sëriñ Moor bàyyi sëñ Taala way juróom bàyyi woon liggéey boobu yëkkati na ko ci beneen escalier bu ko gën a kawe ndax mbirum sëriñ bi moom tabax la burit bu mujj mooy gën a féete kaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa Badiane Penda Badiane mm. Badiane Badiane Penda Fall. Badiane Penda Fall moom mujjee gaañu moo newoon Kër Cheikh. ndeysaan ci njaareem ci njaareem den ak sëñ am ni Modou Mbenda. Mm-hmm. kii mooy Badiane Picc. Ah. mooy yaay mm-hmm. maam Diagne. Mm-hmm. mi sëñ sëñ Cheikh dër bi yoroon. ndeysaan maa Ami Fall mi sëñ Cheikh sëñ sëñ Cheikh kii mooy soxna Wali Fall moom lañ ma tudde ah, moom suñu am soto bokk ndey ak baay waaw ak soxna jab soxna jab moom daa daa dëgguma naa ko soxna rek laa waroon am photom ba woon leen ko moom soxna jab moom la ma ba ba sama maam xaar amee gone mhm. ñee ñu dem ci maam Cheikh Fall ni ko mhm. soxna xaar de am na gone mhm. ne mën na leen ah bisimilah jàmm soxna xaar lu ma am ne ñu ne ko soxna xaar da jigéen la am mu ne ah bisimilah jàmm yàlla nax na ma góor la ma waxoon moom ba moom ah, sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Aliou Fall Mbawar la féetaloon waaw ne na fi ba ne na fi ba ni mu fiy jógee mhm. bindub góor la ko sans borom bind mhm. waaw mu bañ a Aminta Fall mhm. yaay soo soxna jaxate yaay soor a jaxate ah ñoo bokkoon ab loo waaw <laughs> moo moo yoroon ah, sëñ Saal Saal Baye Fall mu sëñ Fallou. Mhm. ak soxna Daba Fall mu Kaolack. Mhm. mu sëñ Modou Moustapha Fall. Mhm. soxna Jab ba ko yoroon. ndeysaan ko sëñ Fallou jëlee jox ko sëñ euh, jox ko sëñ. jox ko sëñ Aliou Fall Mbawar. sëñ Aliou Fall Mbawar da koo yëkkatiwaat. jox ko Badiane Jab. ndeysaan ndeysaan. nag. def sëñ Saal. mu doon am sëñ Falloom. ndeysaan. ko woon. sëñ Talla mii di sama mag ñu bokk ndey ak baay moo ko sëñ ñoo bokk newoon ca kër Badiane Diab waaye lekk sax bu masaa am balaa sëñ Talla lekk sëñ Sall daa lekk. dëgg la dëgg la. defoon ko mu doon am sëñ Fallou mu mat sëg. Mhm. gëmewu ko woon. Mhm. def ko mu doon doomam. Mhm. soxna Diab moomee eh? ak sëñ Amsatou Fall. ak soxna Wali. ak sëñ Abdou Xaar ñoo bokk ndey ak baay. ah sëñ Xaar. waaw. sëñ Abdou Khadre moom la ab ab ah, ah, ab sëtam nelaw bëkk démb. ndeysaan ñu di ko wax Mara Fall. suñ seex mi gaañu woon. Mm-hmm. moo juróon Mara. Mm-hmm. ak may mun a ñing. Mm-hmm. bëkk démb lañ ko doon denc dañ ko doon ñaanal suñ sëriñ mi demoon na ci. lii mooy njabootu soxna Xaar. Hmm? ak maam Cheikh Rafaal. <laughs> waaw sëñ am satu. Uh-huh. soxna Jabb. soxna woli mhm. sëñ Abdou Xaar. ñi ñooñu njaboot toog soxna Xaar Fall ak maam Cheikh Ibrahima Fall. jërëjëf jërëjëf waaw ñu ma desee noonu jëf kon mbokk yi ba léegi rek ñoo ngi fii kër soxna Wali Fall moom am sëriñ Amsatou Fallum Cheikh Ibra euh, ndeysaan ñu fekk fi nag ndeysaan doom di sëriñ Serif ndeysaan mooy ko baax lool ah, yaatalal ñu bu baax a baax gis ngeen kon li nga xam ne fi lañ toog nii bant bi bantu Cheikh Ibra la ku ko gis xam ne cosaan la macha allah waaye nag koo gis xam ne rek Cheikh Ibra daal ndakate lum laal moo gën lum laalut te ko gis bant bi xam ne daal lii bokk na ci jeexantal yi nga xam ne foo dem ci dëkki Cheikh Ibra yi bant yam fa sampoon wala yam fa nekkoon it boo xoolee cosaan loolu ak lii du am wute kon yàlla ñu sàmm defal ndimbal ak taw feex ba léegi nag ñu ànd ko seen seen Lamp Fall Leeral Touba ci yaatal gi lépp rek barke maam Cheikh kon ñu ngi ciy fasaleel mboolem murid yëpp rek. saa borom defal ñu mucc a xéewal barke Cheikh Ibrahima Fall wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu la ilaha illallah la ilaha